ngir jagleelaat ko askanu Sénégal ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaanee tamit mu dëppoo ak bëgg-bëggi doomu aadama yi ak njëriñ loo xam ne dana leen jëriñ fii ak fa nu jëm fi nu ñëw nag tey du du du du du gan doonu tur tam koo xam ne ku ñu war a présenté la ndax ñëpp dégg na ko ñëpp itam xam na ko wala ku ko xamul si tamit dégg nga turam ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye waaye ma di ci toxtal saa su ne naan le marabout voyant international Ndiaye Diéné moom lañ seet si tey kon lu ñuy def mooy nuyu ko ziar ko waaye dalalaat ko ci biir émission bi ngir bëgg a waxtaane waat ak moom sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax macha allah. waaleykum salaam ñu ngi leen di fay nuyoo. macha nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi. nuyu mbooleem ñi ñuy déglu ci réew mi ak ñuy déglu bitim hmm. leen wax ni waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh macha allah jërëjëf sëriñ cheikh ibrahima ndiaye ci nuyo bu am solo bu macha allah fi ko niñ ko waxe rek dañu daldi tambalé suñu waxtaan tay way fan koy tambalé moy bëggon nañu xam nitu yam wayam ci digganteem ak suñu borom waaw ay taala nitu yalla yi mm-hmm. fi ci rew mi so xasse ba wax nitu yalla rek mhm. ñom ñëpp seen xel de dem ci waliyu moy mhm. ko xamni ku soso ci defaru yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñom nak seen yamu way moy fiñu commencé nitu yalla yi ñom ñëpp ñi ngi commencé ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye ñi ngi itam ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bari nag dañuy topp waxi nitu yàlla ju muy wax te duñ xam wax ji dayo dégg gi nim mu toll waaye nitu yàlla yi daal ñoom ñépp ñu ngi commencé ci yonent bi ndax yonent bi li ñuy leeral yonent bi lañ ko leeraloon mhm. yonent bi leen ko sol ñu koy leeral kon ñoom ñu ngi commencé ci yonent bi mhm. ñu ngi yem ci yonent bi mënuñoo génn li yàlla yónni woon yonent bi kon nitu yàlla yépp seen tàmm li ñu ngi ko commencé ci yonent bi seeni jeexital mu ngi yem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Serigne Cheikh ci leeral bu am solo boobu waaye bokk na ci tamit euh, nitu yàlla ak wàlliwu parce que dégg naa léegi nga tudd ko léegi sa biir wax seen différence lan la waaw seen différence moy nga nepp tubab wala nga nib chinois wala nga nepp nar sen différence moy seni melo mhm. soppi wu liñ doon muy lenn di nit waliyu abbat la rek mhm. bu ñuy wax mu jëm ci arab nitu yalla di bat bu ñuy wax mu jëm ci wolof mhm. waye soko lekkale lenn rek la jeureuf ci leral boobu solo lo. legi bokku na ci tam li nga dañuy gis tay ji ndax kër kër kër kër kër kilifa diine yi wala kër euh, sàng si est-ce que nit ku ku meññ koo ci ñoom mën naa doon ab wàllewu wala moom lu muy tarbi la wala lu ñuy def ci moom wala wàllewu moom suñu borom a koy bindal boppam. waaw nitu yàlla yi daal. yàlla bindee nit ñi def leen ay xaaj ñii mu def leen ay yonent ñenn ñi mu def leen ay waliyu ñenn ñi mu def leen imaam ku bokkul ci xaaj yooyu lenn mën na cee boole yaa ngi dégg ku bokkul ci xaaj yi yàlla tànnal boppam pexe mënu la cee boole juddu mënu la boole rëyu làmmiñ it mënu la cee boole man la joo dégg nag mën naa bañ a doon ki man la ndax nit yàlla wax naa ne ni yàlla tànnee yonent yi noonu la yonent yi tànnee ci seen biir nit ñëpp ay awliya jiital leen ci nit ñi mm-hmm. bu dee fii nag ci diine ji ñu gëm islaam di diine ju bàyyeekoo ci yonent bi nit yàlla yi yonent bi moo leen décidé def ci ñoom leeru yàlla ngir ñu gindi ci nit ñi mm-hmm. loolu rek mooy nitu yàlla mm-hmm. bokk nag ci deret joo xam ni wëlliwa ko sos taxul nga doon wëlliw Mm-hmm. yent yàlla noo ab yonent la di wooteel yàlla sos diine ju jóge ca yàlla jur taaw te bëkku ca mm-hmm. kon du am pexe wala ab judd mooy tax nga doon li sa bàyyi doon wala li sa maam doon dogalu bi yàlla moo ci njëkk ak xam-xam ak na góorgóorlu sabab lu jëm ci ba suñ borom boole la ci okay. jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu ndax moom fi mu ne dafa toll dafa toll ci jamono joo xam ne faaw mu leer parce que li ngay wax woote yi bëri na kenn ku ne di wax fi ne te li wax rek mën a mën a joo gis moom fi ne mën a mën a jee moo tax ñu ci cadre bi bëggoon ci leerlu tamit waaye itam bokk ci tam ba tey est-ce que ab yonent wala wàlli wala xut bu samaan mën na dépasser garaat boobu mën na dépasser garaat ban boobu mu nekk comme par exemple tey ji bi mën na dépasser garaatu wàlliwu nekkaat leneen nekki leneen. waaw du ko dépasé day bëgg a dugg ci domaine nu yonent wala doon yàlla wala leneen <laughs> loolu loolu wali yu mënu ko nee naa la mm-hmm. central bi bi bi branche le wali yi yëpp mm-hmm. mooy yonent bi te yenent bi li wali yi xamul ci yenent bi mu mm-hmm. ëpp fuuf sax liñ xam ci moom xam nga yonent bi du pour niti kese yonent bi moom dal di ko def muy benn central boo xam ni lu am ci alam bi lu mën a doon ci bi la lewu mm-hmm. nit ñeeg junne yeeg malayka yeeg montagne yeeg yu ndaw ndawaan yi ngay xeeb ak yooyu yëpp yàlla daf ko branche ci yonent bi itte yonent bi nag mm-hmm. daa weesu nit kese ndax yonent bi lépp loo xam dafa bëgg a jokk ci suñu borom mm-hmm. muy nit ak lu dul nit ci yonent bi lay jaare wala yu nag des fois ñu romb loo xam ni xamuñu lu muy wax sax. Mhm. te soxla yàlla. lu leen nga wax de. dégg nga wax bi lu leer kay nga wax. dama ni wàllu yi ñu romb loo xam ni. Mhm. xamuñu la muy wax. Mhm. xamuñu la muy dox te loola soxla yàlla. ci kon bu dul yonent bi rek loolu du ko xam. kon wàllu am nañ yemuwaay. seen yemuwaay mooy yonent bi yaa ngi dégg. loolu noonu ma la ko leerle rek la demee. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral boobu itam ba tey bokk na ci tamit bëggoon na noo xam ci wàllu li nga xamante ni mooy mm, rawxaan ndax dafa am comme ni yàlla bindee nit ay góor ay jigéen est-ce que rawxaan yi tamit dafa am yu góor ak yu jigéen. yàlla daal ni mu bindee nit ñi noonu la bindee junne yi waaye bindewul noonu malaayka yi. ñetti matière yoy nak patch yoy ñetti kuréel yoy ñoo fi nekkal yalla ëlëgit bu ay atté taxaway ba ñetti kuréel yoy rek mo fay nekk kuréelug nit kuréelug malaika nit ñi nak suñ borom ci lim leen bind moo tax ñu ami goor ami jigen jinné yi nak ci leen suñ borom bind moo tax mu ami goor ami jigen malaika yi nak ci melo yu len suñu borom bind moy wenn melo yaa deg ñom duñ soppé soppeeku mukk ci ni yalla namm ñu mel nonu jamono bo len soxlaale nak bu ko jaare ci yalla yalla mën na leena jaarale ñom ci lenn lo xamni yow di ko mëna identifier ba jotté len ci mën nañu doon dem jigen mën nañu doon jëmmi goor waye niwna lu ab téere wéral nitu yàlla wala ku amoon soxla ci malaayika mu dikkee ko jëmmi jigéen yaa ngi dégg waaye nag malaayika yi dañuy fréquenté góor ñi dañuy fréquenté jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril la ko doon fréquenté yaa ngi dégg soxna si ñuy wax Mariama Seydina Jibril la ko fréquenté indil ko Seydina Isa te jigéen la yonent bi Seydina Jibril moo ko daan fréquenté di ko indil alquran te yonent bi jëmmi góor la noonu la loolu demee malayka yi nag am na ci xaaj boo xam ni suñu boroom wax na ci loolu ni nit dina ko jariñoo ëllëg yowmal xiyaam muy ay urul ayn urul ayn yooyu nag wax nañ ni ci melow jigéen lañ leen tëgg ngir nit ñi yaa ngi dégg waaye yooyu noonu nag ay yeneen la su jëmee daal ci wàll wi ñu wax ruuxaan muy rawxaan yi wala ay xuddaam wala ay malayka ñooñu ñoom duñ soppeeku ci aw melo bu jëmee nag ci nit ak junne dañuy doon góor di doon jigéen nit ki bàyyuma yi nga xam ni ñoom it dañuy doon góor ak jigéen yooyu moo am góor ak jigéen mooy nit ak junne ak xayawaan yi waaye bu dee ci malaayika doo ko ci mën a identifier jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu itam ba tey tudd nga ko léegi sa biir wax muy wàllu jinne est-ce tey ni ni li comme ni ñuy waxee nitu yàlla est-ce que jinne am na jinne yoo xamante ne ñoom it jinne yi suñu borom lañ bëgg donte ñëpp suñu borom a leen moo leen sàkk waaye comme ni nitu yàlla di dëgmale suñu borom nekk ci lu baax est-ce que jinne yi am na ci waaw yant bi nee bi mu wootee mm-hmm. dafa woon nit ñi wa ma xalaxtul jinna wal insa dafa woon nit ñi ngir ñu gëm yàlla woo junne yi ngir ñu gëm yàlla kenn ku ci nekk li nga soxla ci yàlla ci yonent bi rek ba am ba ko daa am nag looy gis ci junne yi ci nit ñi te doo ko gis ci junne yi waaye bul jàpp ni amuñu ko am nañ ko waaye xadra bi niñ ko organiser ak ni leen yàlla mayee ci seen tabian ñoom Dabuk bokkut ak nit ñi ni ñu organiser lo rek la ya ngi deg xam nga ñi dëkk ci kaw asaman si wala ñi dëkk ci jawu ji soxla wu ñuy tabax ñi dëkk ci kaw suuf nak bërëb yi ñuy màggale yàlla dañ koy tabax way ñi nekk ci taatu geej gi duñ tabax ya ngi deg bu baax hmm? bu baax lolo tax nit ñi fi ñuy jaamoo yàlla hmm. nga man ko identifier ni juma ji la wala jakka wala taatu garab gee la wala bërëb bee la junne itam ka saalika noonu lañ amee ay mbooloo ay kuréel yoo xam ni dañuy jaamu yàlla ci ni ko yàlla digalee yonent bi ngir mu digal ko nit ñi kon junne yi am na ñuy ni ko nit ñi amee junne yi am nañ ay xam-xam ni ko nit ñi amee yonent yàlla Suleymaan tëral na doomam wër mond bi yëpp xamuñu ko ko faj genn kàngamu junne moo ñëw ba ci moom xamal ko ni ko ci garab gii mu wéeru bu ngeen ko roccee rek jàmb xob yi sotti ko mu wér mu def ba xam ko suñu boroom moo jaarale xam-xam bi ci moom yàlla nag mooy li ma ki démb rek lam daan jaarale ci nit ñi ba léegi mi ngi koy jaarale ci nit ñi waaw ak yonent nag mënatu la am waaye boroom xam-xam du mos a manqué. incha allah jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima ci leeral bu am solo boobu tam macha allah rabbi wax nga ko léegi ci ñoom ci seen kuréel léegi tey ji est-ce yàlla wala ab wàll mën naa dugg wa jinne feeñu ko ci jox ko ci ay jox ko ay tegtal yoo xamante ni doonu tegtal yu baax wala du dëggu la bokkul ak la mu doon seet. waaw ndax waaw loolu am na. manam nitu yalla man na duggu xalwa junney sayatin feñ ko ngir yàq bi def wan ko lo xamni su amul xam-xam mu bo xamni man na identifier leer gi da koy jaaxal xam lo day am junne man ngay ñaan legi xam nga nitu yalla tamit duggu xalwa teewula nek li nit di def nga koy def moy nelaw ko yew man mm-hmm. nga nelaw génn génn gént kàngamum junne ñun la bàyyi li ngay def li ngay ñaan nangu na wan lay preuve te loolu amul waaye jamono bi nga nekkee nag di toog di tudd tur yeeg yooyu noonu yi génn moom ay rawxaan la waaye jamono boo delloo nag ci adam yeeg kese mooy doon nit kese moo xam da nga tëdd nelaw mhm. moo xam da nga amoon ci leneen loo nekk ndax xalwa tamit tamit kenn mënut a toog wéru yàlla ne la day wax rek benn baat loolu mënut a nekk <laughs> doo génn jaxasoog nit ñi waaye di nga def yëf yi nit ñi di def mooy nelaw ko yeewoo ko lekk <laughs> loolu nag jamono bu nelaw dikkee junne mën na la cee feeñu war la ngir bañ nga àggale li ngay def loolu mën naa nekk mm-hmm. waaye nag su dee ku kamaal la mm-hmm. koo xam dafa xam suñ borom day xam waxi junne ak lu dul waxi junne allah sama classe gii mm-hmm. junni mënuñoo nax ci xalwatu waaye nag bari na ñoo xam ni li ñuy def dañ na leen sotti na ñu génn te sottiwul kon yéen yàqkat yi moom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko wax ne sotti sotti na daal. junne yi ñoom ñoo ko feeñu ci nelaw. Mm-hmm. loolu nag ko tax xalwa gi. Mm-hmm. moom nag su amul ab dayoo day gëm lim gis rek ci nelaw yi tax koo génn xalwatu bi fekk boobu pareegul. fekk réalité bi ñëwul. noonu dina ci am batix la waaw te suñu Cheikh Ibrahima Ndiaye moom bu nekkee ci jamono boobu moom moom day topp ba gis résultat bi ni ko suñu borom di joxe fi mu mu door xam ne waaw man ma toll dadul fii ngeen foog <laughs> ndeysaan man junne bu ñëwoon dama war sax ci junne ji jëmmi junne ji dama ciy gis yàlla parce que nga bul ma identifié ci man maa ngi ci yeneen bataal <laughs> macha allah yal na yàlla xeeb te dolli kon macha allah rabbi mm-hmm. jërëjëf ci ci ci leeral boobu mais sëñ Cheikh ma euh, nit kuy nit bu jógee ñëw ci yow seet si la ngir nga saafaraal ko ay aajoom jumtukaay yi jumtu am ngay jumtukaay mais jot jumtukaay nga yor ngir mën a saafara si itey doomu aadama bi moo xam ci tawat la moo xam ci soxla wala ci ñaan wala ci lu ci xam nga boo jógee jëm hôpital ci médecin yi dañoo yor ay matériel yu ñu lay consulter. ala kulli appare appareil teg. Mhm. Ini ci so yek pikir yak boleh dee tapet daw ngay def ñun nit yalla yi kasaalika bo ñëwee dañu tek, alcorane ji tek génn tru yalla hmm. yi tek wa rawhani yi waxu hmm. suma suru won waxi tele sax ma wax la wo malaika yi kii day consulter di laaj lu science créé yooyu noonu ñun dañuy consulter dañuy laaj lu jóge ci suñu borom bawoo fa te du fa jug mukk yàlla mi bind nit nag bu dee ay appareil ko ko gën a xam hmm. léegi la ci jamono ji <laughs> su xam nga appareil hmm. mën a fi seen tolluwaay yam rek lañ mën a gis hmm. xam nga yàlla kenn mun a gis léppam waaye dama la bëgg xamal ni mhm. lu ab médecin mën a xam ci malade mhm. benn mhm. nyin fukki judde mën naa ko xam ci malade jëmmi feebar bi médecin di ne ci ay appareil ba ni lii mooy feebar bi dal nit jëmmi feebar bobu mën ma àgg mum ci tur yalla ba jëmmi feebar bi di wax dégg nga wax bi jëmmi feebar bu mën doon buñ ko génnee ba ne li jëmmé fièvre tel moko dal jëmmé fièvre bobu man nako wax la yalla hmm ba xam nu mu demee hmm. te foofu science àggugu fa way leer yalla wessuna na kon am nay jumtu way hmm. yumay ñaanalee nit ñi ci seen soxla jërëjëf seigne Cheikh Ibrahima ndjay ci leral bobu tam batay bokku na ci légui ndax fimné seigne Cheikh Ibrahima bu nit ñëwé tamit soxlaam bi mu lay wax rek nga koy saafaraal wala faaw dafa da nga koy xool ci say mbir yooyu pour xam dëgg-dëgg soxlaam parce que leneen di dina am benn problème bu ndaw rek ñoo ne sans problème lii la te fekk na problème boobu am na leneen lu ko xam ne moo ko sabab wala feebar boo xam ne moo ko moo moo moo ko indi ca moom léegi yow ngir nga saafara ko yow da ngay xool yow danga koy anal da koy xool ba pare wala dangay ngay jóg rek fajal ko la mu la mu la mu soxla moom waaw xam nga nga xam ni bopp bi mooy metti mm-hmm. léppi bopp bi di metti xamul fi metti ci bopp bi sans boppay metti la lay mm-hmm. yow nag yaay xool digg bopp bay metti wala bëñ bay metti ba metti bopp bi walla bët bi mm-hmm. loolu nag boo amul matériel bii ngay wax doo ko mën a xam yaa ngi dégg mm-hmm. waaye nit daal ab sabab la bu jóge ci suñ boroom li ko sabab lépp nekk ci loxol yàlla ki mëna xam mbirum nit nag moy ki wul bopam ba paré xam suñ borom mm-hmm. ku dul kok mëna dugg de waaye du dem wala du sori mm-hmm. dégg nga wax bi yang système yi ngay gis ci aduna yépp ñam mm-hmm. système of doomu aadama mo ci gëna compliqué dégg nga wax bi système yi nga gis ci kaw suuf yépp am système mu doomu aadama moo ci gën a compliqué système mu doomu aadama nag leerug yàlla rek moo ko mën a doxal. Hmm? nit ñi nag dañuy am lu ñuy juum. Hmm. mooy doomu adama mënalul doomu aadama ni moom dara foo fekk ku mënal nit ñi rek wala mu mënee nit ñi dafa am lu yàlla yee ci moom. te nelawal ko ci nit ñi mm-hmm. hmm? ko gis mu jité nit ñi amna fu mu leen jëme mm-hmm. ñaar yi rek mo fa nek jëme gaay ci yalla and ak ñom ci ndigalul yonent bi ak yalla mm-hmm. wala nga jëme leen ci setané and ak saytaane ki am rek hmm li nga wax mi motax nit likoy dimbali defa mu ñew dagaan la dimbali te moom xam ko te ñàkk a xam sax moo tax ngay ñëw ci sëriñ ñu ko dama bëgg nga dimbali ma ci nangam. man nag man laa wax waxuma keneen de. du ma dimbali kenn ci lu neexul yàlla. duma dimbalee genn kattan nit bu dul kattanu yàlla. Hmm? loolu di leer na moom waaw ah, loolu rek la moom baa tax lay ndeysaan jërëjëf sëñ Cheikh ay Ndiaye macha allah rabbi ah, amati na solo loolu tubaarkàlla dañ koy xool dañ ko dañ dañuy xool ci ay jamono yu mag ñi wala jamono yonent yi dañ doon gis ku ci nekk ci ñoom kilifa yi ba ci ay ñoom firaaw nag yooyu ku ci ne amoon nga euh, sa néegu biir wala sa sa yëfib maanaam sa benn comme nu ma ko mën tuddee benn benn benn benn benn benn secret boo xam ne moo xam benn raw rawxaan la wala dara boo xam ne moo la daan teg ci yoon di la gindi di la wax yi war a xew yëpp hmm. ci mag ñi dañ ko doon gis ñu koy am mais tey jii fii suñu réew mi toll est-ce que tey jii tey suñu suñu suñu suñu suñu njiitu réew yi wala suñu xalif généraux yi am nañu mel am nañ ay ay ay ay ay yi suñu borom yu nekk ak ñoom. Mm-hmm. waaw bagages amul benn réew boo xam ni jiite na am réew te amul mm-hmm. njiitu réew nag. lu doy waar la loo xam ni nit ñi xamaguñ ko ab yan la bu diis boo xam ni gisal ki yanu li yanu waaye téeñ ba nag bul xam lu doon hmm? njiitum réew kenn du ko yenum réew te defaloo ko téeñ téeñum njiitum réew nag li ci garaaw mooy yàlla koy téel Hmm? bale na ku naan la mën na ma yëngal mbiru njiitum réew mi te bu ko burusu woon rek mu faatu <laughs> hmm? Hmm. njiitum réew bu xamee dëgg dëgg li yor wëlli yi nekk ci réew mam nekk yépp buñ dawoon wut ci ko day taxaw ndax ci ki mu wéeru duñu agsi mukk mu yàlla moo dañ lay wax ni la ku xam yàlla doo xeex ak njiitum doo ko tooñ mhm. ndax boo dawee wuti ko ci yàlla yi laqatu te yàlla nitu yàlla ñu ko mhm. wala yi ngay gis nii mhm. duñ la laajoon luñ gën a ragal bul dem di seeti leen neen ñii yàlla dong lañ ragal ku la ci tooñ wool yàlla hmm? dégg nga xool dégg wax bi baax a baax <laughs> yàlla rek lañ ragal <laughs> yooyu yooyu nag day mbiri baatin baatin la <laughs> jërëjëf Cheikh sëriñ <laughs> Cheikh Ibrahima Ndiaye <laughs> tubaarkàlla wallahi wax deug gëna indi ci yàlla leen te yàlla leen jox li ñu yor kay fi mu ne nii rek la wara mëna ragal itam ba wax deug yalla jërëjëf ci leeral bobu itam ba tey mais sëñ Cheikh suma suma la laajee ci bi nga dal bi nga nekké ci ci ci ci wa mission bi la suñu borom sante mhm. ak tay ban ka nga jax nga ci mësa am bo xamanteni suma su la ni ma ko mën a waxee mooy dépassé na la waaw kaa ma ci dépassé dal du ci ñak nak ndax mo dama dox dem fu bari euh, wàllu tur ci gëna a moy lima ci ñak alal du bari turu nek jënd naa ko tur wu jaay nañ mako nitu yalla ku nek fréquente façon ndax bu ne nax nañ ma parce que waye bima wéré ba dajal mhm. ñibbi xam ne li ma doon war a ngi fii ci senegal laa am lool moom naqat na ma mett na ma xam naa ni tur ma doon wëri yëpp fii laa ko bàyyi woon di ko wëri kon coono boobu moom man jaaxal na ci Seydi <laughs> ndeysaan yaa ngi dégg mm-hmm. mooy comme cas boo xam ne nag jaaxal na ma muy nit koo xam ne ma ma koy ñaanal ñaanal ko ba sonn ñaan gi nangul wala dara du ñàkk mu dal ma ci mm-hmm. ndax dafa ma am yoo xam ni dama ciy dugg waaye lii indi tardement bi mooy ki ma ci dugal da dul am doole ju mën a àggale mbir mi nu hmm? hmm. benn waay dafa am benn alal bum doon yóotu ci àdduna bi lu war a mat trois cent nangam et quelques millions d'euros di ko ci banque yi fu ne ma dugg fa lu ne ma def kenn mënu ko lebal bi mu jël ak man euh, ma wax ko ni ko sarax nangam ak sarax nangam buñ ko defee bank bo jaaroon lef fa dinañ la waxat la ci wax ji légui nak ba nga ko ñu genn sarax ba pare Bank yim jaaroon doon lepp yépp ñu bañ ko lebat woowaat nañ ko nu ko jox liñ ko doon lebal ba ci kilifa yi yaa mm-hmm. sarax yi la am doole def ko motax tax loolu dikkel dikkal ko waaye des fois tam nga am koo xam ni da la dugal ci mbir nga koy ñaanal ngeen ak ci ba sarax yi du yor lu mu ko defee dëgg te yow doo ko mën a defal mhm. loolu du mos a sotti ndax ñaan yàlla dafa am mhm. ànd ak ay mbiram sarax nag ca la bokk jàng alxuraan ca la bokk dimbali jërëm ca la bokk mhm. xettali ku ku jàq ca la bokk yooyu yëpp nag defaa nga dem ba toll foo xam ni yooyu da nga koy war a def te ki la koy defloo amul moyen def ko. waaw nga boobaa day indi ay ay ay gàllankoor. moo tax ab sëriñ néew na nga ni kamal na ci lépp. Mhm. des fois gàllankoor yi li koy sabab day day day jóge ci lim nekk rek waaye yàlla boo yoree tur yàlla dara loo xam ni tur yi mënu koo sottal amul waaye sabab yi des fois mooy manqué ba jafe-jafe di ci dégg nga xam ne baax loolu rek la baytaal macha allah jërëjëf sëñ Cheikh xanaa bi ma koy jeexalee rek kon mooy euh, bu fekkente ni kaa moom mënu cee ñàkk léeg-léeg euh, ana koo xamante ni demoon na ba amatul espoir ci dara koo xam ne taxaw nga ko tey jii ba moom fu mu toog tey jii moom fi mu ne sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye sant moom lay gërëm moom lay ñaan loolu moom bu jekkoon ci defal nit wax ko kon dinaa la wax loo xam ne ci réew mi da naan déedéet yaa ngi dégg mm-hmm. bari na ñoo xam ni dàqoon nañ leen fa ñuy liggéey maa leen fa delloo fii ci Sénégal waxoo ne euh, waaye cas bi ma ci gën a remarqué muy Guinée équatoriale bi nga xam ne dañoo daje woon Cameroun euh, mu amoon jafe-jafe paralysé maa moom ci turu yàlla yi maa moom ci turu yàlla yi ba mu jóg dox keroog ba mu jógee taxaw moom man yëg naa ni yàlla rek fi nekk hmm? te man mi ko def waaruma ci waaye médecin yi nga xam ne ñoom ñoo xamoon ne daa paralysé ñoo ci waaru hmm? ma xamee ci nag ni suñ boroom dafa jubloo jëme ma ci boppam hmm. moo tax may doole li lii waaye lii Dulu lu nit di def waaye man sama bopp nag dama jàppeetul sama bopp nitu kese li nga wax bi hmm? jàppeetoo sa bopp nitu kese déedéet nit ak lan la waaw waaw nit moom dañoo wax ni hmm. xam nga mbiru maarif mooy géej rek kon ma leeral gis ma ni ma tok ni di ñaanal gaay rek jërëjëf sey cheikh ala wa wa etats unis suñu gor ga nekkon etats unis c'est comment ba wa xam nga kooku mbiram dafa ëpp waxtaane baytaal ndax nit bu ko ñepp ne da ngay genn aduna nga ne ko demagoo hmm. loolu dafa ëpp waxtane motax sa saa day ne sama xel motax fa bu ma la gisee dama la koy laaj waaw mom nak hmm. da mujju wo ay waajuram ay mbokam ay xaritam leen dund gi ma yalla joxon jeexna dund gi ci sëñ Ibrahima dool na ko fi des te Cheikh ma maa jàkkaarloog yow te amul bes bu may xey sama xel du ne ci ci gor ga waaw waaye loolu eh, mbirum yalla la rek ndeysaan xam nga nit bu soriwul dara am du ko umpu moom daray nit du umpu yalla de dama ni jëmmi doom adama bi ci bopam bu soriwul dara am du ko umpu di nga xawi bu baax batal man ma am ngeen kan damay defar pa yi mi yowati de mën ta ñak kattan wi wom mën ta ñak de waaye yalla na yalla dolli ñu jamm milliard wala ah sàmm réew mi amin yasi eh, dimbali njitum rew mi hmm. tawadi nek ci aduna si hmm. yalla nako yalla teggé yalla rek ko mën teggé su ko defee nag euh, sénégalais yi nga xam ni ñu ngi bitim réew ñu dalal seen xel kenn nag mënu leen a wax ni bu leen jaaxle waaye nañ dalal seen xel te xam ni fàttewuñ leen ñoom ñëpp def nañ leen ci suñ biir xol def nañ leen suñ biir xel te guddi yi ñu toll toll nañ fa ñoom ngir dimbal leen ñi ma ci xam ñi ma ci xamuñ ñëpp képp ku ci dégg samay kàddu daal mhm. na dalal sax xel te bul am lenn looy ragal sa digganteeg li xew ci àdduna yaa ngi dégg mhm. mooy wàll yi nga ciy dégg waabaa yi am ak yépp mhm. na ci seen xel dal waxuma ko nag ngir bëgg koo wax kese ñu ne ci réew mi nañ dalal seen xel bu leen tee def dara ñu ne bitim réew tey ay sénégalais nañ dalal seen xel du yëfi yàlla la nañ dalal seen xel <laughs> jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye waxtaan wi neex na <laughs> waaye gàtt na itam ndax waxtu bi moom fi neexoon nañu waaye lan mooy doon message bi ak kàddu yu mujj yi ñu jeexale ko rek émission bi. waaw euh, di soññu njiitu réew mi. ak kilifay diine yi nañ bàyyi xel bu baax dénkaaneel yàlla li mm-hmm. te xam ni. ci ay nit la ko jële jox leen ko te it bis penc bu ñëpp dee dem ñooy mujjee dem mhm. di soñño itam boroom alal yi yàlla dénk alal nañu fàttaliku way ñàkk yi te xam ni mënoon nañ cee bokk di fàttali ñi nga xam ni ñoo yor wàllu sante xamal leen ni mënoon nañoo feebar mhm. di wax nag góor ñi ñu yërëm jigéen ñi te xam ne rey nit mhm. ngir àdduna kese amul solo te yàlla wax na ci alxuraan ni ku rey kenn nit mel na ni rey nga ñëpp mhm. di wax itam ñi yore kaaraange réew mi ñu fàttaliku réew mi bu baax mhm. te xam ni aarloo wuñ leen lu dul Sénégal te jamono ji ñi ñuy aar ci boppam ñoo wax ni amuñu kaaraange kon lu mu doon hmm? nañ delloo si suñ bopp ci biir réew mi mhm. jéem a xool nuñ ko jiitee ci dëgg ndax loolu rek moo neex yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye le marabout voyant international sant la gërëm la ñaanal la yàlla suñu borom mu doole laa taxaw doole guddal saw fan gën a wéral say cër ba mbooleem naa li nga xam ne naa la nga ko réew mi ñaanalal ko umma bi tamit suñu borom defal la ci lu faw ko sax njort ci darajey Seydouna Mouhamed barkeb Cheikhul Khadim suñu yaakaar waaye itam sant bu baax téléspectateurs yi nga xam ne saa su ñoom it dañuy topp émission bi waaye dañ lay topp yow ci sa bopp personnellement parce que njëriñ ak njàngale bi nga xam ne ñi ngi koy jëlee ci say kàddu te nga jëlaat ko delloowaat ko ci suñu borom ndax yow sa mbir dañuy xool ni da nga koy tàmbalee ci borom delloowaat ko ci suñu borom kon ñoom jàng topp bi ñu lay topp itam njëriñ lañ ci gis moo tax ñu ñoom leen ñaanal kenn ku ci ne fa mu ne lay bëggam ak yéenam ak mbétam tam yalla na sa yalla sama bu suñu borom jappandal lepp ndax gëna mo am mo sañ mo mënta moy def yalla na yalla dogal ci eh, ajoy jaam ñëpp wu ci darajey sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam jox leen di dajje inshallah rabbi ci benen numéro ak fa sa jangoro jërë ngeen jëf wassalam